bonjour célibataire maax la wala waan guys Fla Guys ta freestyle bi man dama ko léet a gis ndekete ndeyam please su nekkee subscribe aguloo si channel bi yow maa lay ñaan please subscribe xam nga naka leen dee subscribe mooy lii nii yow mi nga xamante ne nag yàgg nga defi fi seetaan te xam nga nun dee subscribe te subscribe you are wicked good nen dem fula gangsta génne na freestyle bi te tune bi mu ngi bokk si album bu war a drop february bi I think fula gangsta na dégg naa ñu ngi bëgg a ban sa music nga ni xanaa ñu yore wàllu musique bi si Gambia

wait guys lenak nag duma mën continuer ak fini nii bàyyi ma oustaz mu ñëw continuer ak ki nga xam ne mooy Fula Gangster am am. full of gangster ningana yolo heunda yam nginenyubantu mamizik anadenge ndoknde yam ananyomnyomo music binda yam baiken yaiken momut indosi binda yam lumabhuka lai def defale wumaken nde yam ndefalula nena music lakaharam baiken yaiken momut indosi binda yam ndayam ndayam ndayam ndayam ken nde yam kula hetna bahal suma heta manena Who spoke? That spoke. eh? Suma music hana denye ndok Luma def Wahal If you are new here, please don't forget to subscribe to this channel. I'm out. Dayam then. Comment section. man, music do